waaw ah, mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ni Gambia fii ci Bakaw ah indépendance sa jëm ñëw ci première édition first trade fair bi nga xam ni waa chambre gi association ñoo ko organisé tey nag maa taxaw ci box boo xam ne kilifa gi moom wax turam wax ma noonu. Euh, c'est ça euh, Bamba du Mass box 27 euh, édition chambre gi association fii ci say indépendance say jëm la nga mën a wax. ah Cissé xanaa kontaan rek parce que ñëpp xam nañ ne première édition yombut waaye tey gis nga tey tey niveau bi fu mu toll éleveurs yëpp kontaan nañ benn si man parce que maa amee wun wàllum organisation bi kon tey su sottee rek su ma mbégte la man waaw ah, organisation moom laay xam waaw loolu yëpp nag suma équipe bi ñoo ma jàppale yow xam nga si dara parce que ñëwoon nga fi su commencement bi kon tey su sottee rek dafa mel ni ndamu élevage la dafa suma ndamu la tam waaw tey euh, nga ñëw indi exposition du Douba say sa élevage fu mu toll foo commencé. waaw alhamdulilah ñu ngi commencé woon su xar yu pël-pël yi rek di yar tabaski jot ñu jaay waaye yàlla ak ndimbalam boole ak suma ay nit yu baax ñu dugal ma su laadum bi waaye bu ma si duggee nag ba léegi gis naa suma bopp bu baax gisuma si dara lu ma rëccu am naa si yokkute bu baax a baax a baax a baax waaw. waaw léegi ñaata at la. waaw bu may commencé di yar xar moom yàgg na waaye laadum bi moom. boo si duggee ak léegi daanaka ñaari at la rek. waaw ñaari at waaw macha allah waaw euh, ñaari at moom ba presque Gambie moom euh, dafa nekk ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ci doog a dugg. waaw tey euh, ak loolu lu ma exposé. waaw tey moom indi naa benn doomi 10 problème 10 000 problème ñëpp xam nañ ne Roi Basir moo ko jur Roi Basir Saloum mooy jeune mâle bi. mâle bi am na 9 mois. waaw ma dugal fi beneen tëng ay kii femelle boo xam ne moom tamit ñu ngi ko ooyee umu. doomi Topkaro la Topkaro Papa Yada Papa Yada magistrat mooy umu bi waaw waaw noir bi waaw bii moom ñu yaa jaara moom sëtu maa ngi fi amee ñebe bi waaw tam moom ñu ngi ko oye ñu ngi ko oye awa yombe moom sëtu Birame Ndiémé la moom waaw moom mu doom ji doom ji ku ko jur moom tamit doomi doomi waaw femelle bi moom tamit tëng la moom suma benn fi maal bu ma doon liggéey ñu ko wax Omar sëti maxtom la moom moo ko jur moom waaw. mais kan moo la jox monsieur maal bi. jeune bi suma benn waajur bu baax bu ñuy wax Cheikh euh, euh, Modou Mour Sarr. dëkk Rufisque waaw la bii moom suma benn xarit bu ñëw wax Yaxin Abdoulaye Yaxin nekk Kër Massar moo ma ko jox mu ñëw ak porte doom bi Karbala moo ko jur Karbala Chicago Chicago. sëriñ sëriñ Saalum Saalum la fu mu nekk ko jox. moom Yaxin mu ngi dëkk Kër Masar. ah Kër Masar Yaxin waaw Kër Masar. macha allah euh, daal instant bi yaa yaa yaa ngi nekk daal production. waaw su production waaw wax dëgg. taxawal ah, parce que bii itam mbote bi suma benn xarit maalam bi moo ko jur moom daanaka fu mu nekk sëti booy séeréer la ak Saalum. waaw léegi moom tamit mosul tey une semaine. tey une semaine waaw. à part euh, lii mooy sa box wala wala am na am nga maal no am na déedéet maal bi moom dama ko génnee jeune maal bi laa bëgg a taxawal fu mu nekk pour mu continuer liggéey bi. yoroon nga maal waaw yoroon naa maal maal boobu laa laa wax ne moom sëtu maxtoom la waaw ak Cheikh Diop. waaw dama ko joxe su ma benn xarit moom tamit defal na ay production am na yoo xam ne génne naa leen. waaw am na yoo xam ne maa ngi leen bàyyi kër ga tam waaw am na femelle yoo xam ne indi wu leen dama tànn quelques femelles rek indi waaw. exposition waaw parce que liggéey bi am na. waaw am na lu nekk kër ga waaw. tey fan nga fan nga fan fan ngeen toll lan nga lan mooy sa ambition ak lan ngeen bëgg fan ngeen élevage. moom suñ ambition yi mooy yóbbu ko si kanam parce que nit ki moom commencement rek nga am yàlla mooy yeggal yi te ñu ngi ñaan yàlla yeggal yi bañ dem ba suñ ay doom continuer élevage bi même yóbbu ko su level bu high. waaye waaye na tam maa ngi ñaax éleveurs yëpp ñu fexe bennoo man saa yu ma nit tegee micro loolu laay ñaax sagantuma Gambie waaw Gambie moom élevage si laadum yàggu fi waaye dafa bari ay pàcc pàccoo kon nag dama ñaax éleveurs yëpp pour ñu fexe bennoo liggéey yobu liggéey bi si kanam. mooy yor waaw parce que ku dem Sénégal di nga xam ne ñun liggéeyanguñ dañ tàmbali rek waaw dañ nekk su tàmbali rek waaw loolu loolu daal lañ am la wax. Euh, kon euh, bergerie fa la nekk. bergerie mu ngi Ibo Town. waaw bergerie Bamba Numaas mu ngi Ibo Town bo côté Serekunda. suma numéro mu ngi 373 793 5767. mooy suma numéro wala 993 5767 mooy suma numéro waaw. ñaata box ngeen defagum première édition bi. waaw 60 box. 60 box lañ def. waaye am na yenn box yoo xam ne su lañ def yooyu ay pitax la ak ay xaw ma xaw ma nu rabin ñomboor ay lëkk. waa ak ay ganaar ay ganaar ak yooyu waaye nag kontaan nañ trop parce que première édition nga am si bos sant yàlla waaw xëy na commencement moom yombut waaye nag gis nañ si boobu te kontaan nañ te yéen it uy ngeen ñu waaw tey lu ne rek dafa am tàmbali am na benn association bu nekk Sénégal ci koor gi dañuy def seen seen foire onze box lañ commencé waaw am na benn sénégalais bu ma ko wax démb mu ne ma ñooñu onze box waaye dem nañ ba léegi ah. ay cent et quelques box na kon loolu ñun dañ ko sant yàlla jeex na waaye tamit seex Cissé dañ laa dañ leen a gërëm parce que balaa commencement bi buñ commencé affaire yi programme bi rek yéen ñëw ngeen fi yóbbu ànd ak ñun ay place te jox ngeen ñu seen xalaat ak seen doole kon ñun amuñ dara lu ñu leen fay lu di leen gërëm yéen sénégalais yi. su doon yéen affaire yi du dem parce que ñun yéeg nañ suñ gis nañ suñ suñ bopp bu baax parce que Sénégal moom ak Gambie benn la waaye yéen gën ngeen ko fësal parce que tey. foire bi ba mu daj doo tourné box boo gisul sénégalais bu taxaw. te tey média yi Sénégal yu ñëpp dañ ñëw. dëgg la mooy waaw xeebuñ kenn. macha allah xeebuñ kenn mënoon nañoo wax ne kii xaram rafetul wala kii kii la ñoo jël bàyyi kii waaye da ngeen yemale ñëpp. kon ñun dañ leen gërëm di leen sant. waaw di gërëm ñëpp. kontaan nañ si a jërëjëf waaw di sant waa Samagal TV. waaw di sant suma booy bu ñëwut na naka la Ousseynou waaw. waaw maa ngi ko bëggee bu baax a baax. waaw kontaan naa. <laughs>